alors euh, lii nag bëgguma la ci woon interpeller parce que ay kilifa ngeen waruñoo toog ci ay caaxaan di leen ci laaj ku mel ni euh, Kounkandé mais damay ñëw ci tamxarit tamxarit nekk damay dégg ci seen waaraate ngeen ni wax euh, tamxarit ci la ñuy bind luy war a xew ci at beneen bii nii di ñëw tamxarit bis bu am solo la est-ce que tamxarit boobu war nañ ko jël di ci boole ay caaxaan. waruñu ko ci jël parce que bu dee ci calendrier jullit démb la woon suñ ñun suñu premier janvier. démb moo nekkoon suñu premier janvier ñu dugg ci at mu bees maanaam loolu ñu naan bon année di ko envoyé te 31 décembre bu dee ñun démb lañu waroon di wax bonne année wala bërki démb ci guddi kullu amin wa antum bi xayrin euh, mu am ci guddi goo xam ni nag muy laylatul xadri déggal tamxarit tamxarit ay da yi ci xew dafa bari évétement la boo xam ne yi ci daje dafa bari yontu yàlla aadama bi ngay dégg ci bisu tamxarit la ko yàlla nangulee tuubam na keroog bi mu àndeek yontu yàlla Muusa ci bisu tamxarit lañ ko labal mu nekk guddi goo xamante ni bii walla bis boo xamante ni bii jullit ñi dañ ci baaxoo di ci def ay ñaan boo bëggee jëm long voyage balaa ngay départ ci ngay sol gasoil boo bañee am problème ci yoon wi moo tax bisu tamxarit comme ñi ngi dugg ci at mi jullit bi nag repaare ci boppam def ci ay ñaan ci at mi muy dugg wax nañu itam ni dogal yépp ci la ko yàlla di décider kii war naa fekke déwén kii war ta fekke déwén wax nañu ni loolu lépp ci lay am muy guddi goo xamante ni bi di bis boo xamante ni bi bisu jaamu yàlla la Seydina Muhammad ñaari fan yépp la amoon yéene at mu nekk mu di ko woor muy tamxarit ak lendemain bi waaye bi mu wooree ne déwén bu ma fi fekkee danaa ko war ci diggante bi la génn àdduna événement bu mel noonu ak li ci yàlla dajale nga xam ne dul woon ak Seydina Muhammad li mu ci wax yonent yi liñ ci am seen garaat yu rëy yi ñu amee ko ci bisu tamxarit ci bisu tamxarit seen garaat yu rëy yi waroon naa tax buñ dee xalaat fo wala caaxaan ñu bañ kaa dugal ci bisu tamxarit waaye Sénégal mooy réew moo xam ne dañuy topp kaa lu fi waay di wax danañ la topp boo fenee ñu ne la da ngaa boo fenee ñu ni la dangaa fen li Kunkande wax ni dana xar géej gi ñépp a ngi toog di ko déglu moo ko wax gor gu nekk ca sa kàddu ñépp a ngi koy xar xam nga loolu du problème yàqalul kenn dara ku ne comme neex toog sa saal bu dee télé yi dañ koy def direct nga toog sa saal seetaan ko amul problème da koy xar nañ ko gunge kenn bañ koo yàqal mu dem xar ko bu dee mën na koo xar mu xar ko ñu gis c'est simple Aïda man de commentaire boobu nee nañ ma pour pourquoi nga naan kunkante ñu ngi lay xaar boo ko mais loo koy wax leneen da ko naan bu ko xar boo ko nee du ko xar <laughs> te bëgg na koo xar ba pare nañ ko bàyyi mu xar rek te ça fait bu fekkee buñ ko xaree di seen miiru Espagne yi gars yi dañuy mën a taal seen oto rek dem ndànk te du ànd ak benn bruit xam ne tey ñu ci bari ñu ngi préparé fi mu ne nii nag ñu ci bari ci xar gi lañ dépendre ci xar gii la ñu bëgg a basé wu pour dem Espagne xam nga ñooñu bu tasee seen yaakaar tamit ah, ah ñii bëgg a dem Europe dépendre ci kunkande bis bu tasee seen yaakaar loolu du ko jig kon nag na ko xar ñu ngi koy xaar avec plaisir di ko di ko waajal euh, ñun ñi nga xam ne nag soxlawuñoo wu ñoo tukki danañu fexe euh, ñëw gunge ñi nga xam ni ñoo bëgg a dem ñaanal leen yàlla defal leen tawfiix ci voyage boobu incha allahu rabbi Ablaye moom xam naa day dem <laughs> waaw Ablaye moom xam naa bu ko defee ñu waajal la sëriñ rek Ablaye